ma jóg la géel sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkkeeg sëriñ Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ña ko dar lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalxulaayi sayyiduna salaalay la si abda sëriñ Baara

ña fa taboon bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara moo sañ fab tampongub bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom Siidi Lamin Baara jaasi dogal dafa kun la daas ba mu ñëw jox yonen ba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox si lamin baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox say xibam ba mu jox si lamin baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moom waa jundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb dee fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb dee fel sampub sëriñ baara ko ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngir siidi lamin baara fadat wayaayiluhum wadat fayaayiluhum wasam wayaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayiluhum wasan jayaayiluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor aras wóor na baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi ma bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen na sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg dunyaa loo xuraa ñeel na sëriñ baara soppe boroomam la dib xejjam bu abadan yal na nu bur def xejjub sëriñ baara ki di sibtu maaram waa mbàkke gépp a ko xam te waa bu soobee dañuy war maal sëriñ baara ñëw leen siyaare sibtu soxna jaara bu ku jig murit yaa ngi nii te mooy sëriñ baara caatu Seex Abdulaa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu Seex Abdulaa Ndaam mbar ma moo rey mbir waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonn tondoon gàgganti gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dambe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dambe xam-xamu bi kamam booleeg sirub alxuraan maa gëm sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taarif na teeru yuy salmasi ta kifoore du xam bindum sëriñ baara siru baroon bayaan ak teere taxaxal ca alimul xaybul tabe baara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam caalimul xëy bu lañ tëbbe sëriñ baara ca géeji xëy la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeji xaybu la naan ba man ni ñëw di ba ngeen nekkuy lu mat dandu leen bal sëriñ baara koo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara béjén bu ba fi daane nooru diina ya woon yàlla ko sot ba mu ñëw mooy sëriñ baara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 non man ci tollu matoo santub sëriñ baara koo xam ni kii manulaa naan géeji jën yi ni mes toppal ci Seex Ibra Faal santub sëriñ baara koo xam ni kii manulaa naan géeji jën yi ni mes koo xam ni ki manulaa naan géel ni ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yonen yaa xutbu yaak labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw ba mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu tëddoo Cheikh Bamba doo ku mu jur ci tollu yoroo ndombay Sëriñ Baara xarbaaxi seex bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara xarbaaxu seex bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la seex si seddoon na day baax ak sëriñ baara mboolem wilaaya ak Serigne Touba laya fakaab la seex si seddoo day baa nga ak Serigne Baara moo doonu seex Bamba moo gëm yàlla xam la ko war te sopp njool Makka moom Sidi Lamin Baara moo doonu njàmbaar ga ak wu rëy wa mu yor ku daje ak taalibeem xam kër Serigne Baara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 yàlla mu sawa may turandoo baara fana min daa gamoon Seex Bamba fekk ndigal ba dabu jànnatoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndoy sëñ baara maa doxam bu soo na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf Seex Fallu baara bambayi koo foofa nag di toggi reer te la dal di wàccum liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa rilwaanu nag ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara rilwaan di ubbi buntu ajani bee kaawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh Baara jigéeni àjjana waajak seen takkaayi wurus di teeru soxna am tolom sëriñ Baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Cheikh Moustapha ak Falloog sëriñ Baara loola waral cheikh Moustapha wu Serigne Fallou Baara cheikh Baara nag ba mu xalifa la daal di wàccub liggéey jaaxal Serigne Baara cheikh Baara nag ba du doon xalifa la dab bi jannatoo jaaxaan fa moom Baara ñeent la fi am ak yu dem. jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara ñeent fukki at fi am ci turu sëriñ Abdul Karim ak euh, turu njabaru sëriñ Abdul Aziz Baara yëpp ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la sant di la gërëm di bëggee sa jataay bi lool nag ndax wax dëgg yàlla rëy na lool ci moom bari na ñu fi ñëw xëy na ñii dañ fiy ñëw ñëw ci seen bisu mag wala ñii ñëw fii ñëw ci seen bisu baay waaye bis bi da nga cee am ñaari cër ndax ki ñu koy defal di sëriñ Abdul Aziz di sa waajur moom mii nga féete ko mag kon bis bi sa bisu boppa waaye nga dolli ci doon Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke kon bis bi da nga cee am ñaari wàll sëriñ bi mënoon ngaa toog rek ci kër ga ñëw woo sëriñ Abdul Karim mu ñëw ànd ak njabootu sëriñ Abdul Aziz Baara ñu siyaar si la. waaye sa mbaax ak sa mën a jotal ak sa woyof moo tax nga ñëw teew si ci bis bi ànd ak sëriñ Cheikh Baara Mbacke Abdoul Karim yi ak sëriñ Cheikh Baara Abdoul Ahad ca kenn ci ñoom ñaan yi ku fi teewoon rek dana doy sëkk ci man la fee teewal waaye sa mbaax ak sa mën a jotal ak xam ne njaboot gi gépp sa njabootam la li ñu fi def yow lañ ko fi defal ku fi teewit yow la fi teewal nga ñëw ànd ak ñoom di leen wéttali si ci bis bi sëriñ Abdou Karim nee na loolu rëy na ci moom lool nag rëy na ci moom rëy na ci njabootu sëriñ Abdoul Aziz Baar gépp muy góor muy jigéen muy mag di ndaw li sëriñ Cheikh Baara Abdoul Ahad seede ci moom loolu rek mooy li am xamul lu bon ba koy def kon sëriñ bi ñu ngi lu koy dénk nga ñaanal leen ko mu yàgg ci bopp njabootu ko sëriñ Abdul Aziz Baara gi ñaanal njaboot gi yëpp li sëriñ Cheikh Baara Mbacke wax ci yow it Mbacke loolu rek mooy li am baax nga lawet nga mbat nga sëkk kilifa ba yàlla dogal nañu ñun waa kër sëriñ Baara xaw ma lu ñuy tumuranke wala lu ñuy jëggaane waaye du doon kilifa ndax mbat nga sëkk njaboot gi kilifa féete nga leen fa leen seen wéy jur yu féete woon sunum xel dal na Mbàkke ci yow li ko sëriñ Cheikh Bara Mbàkke waxee rek sëñ bi ah, nga ñaanal ñu dëgg la sëñ bi moo la war a ñaanal waaye nag daa ñëw ci sa bis nga ñaanal ko Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd wér ba yéene ak naal yu am ci kër Cheikh Mouhamadou Bara képp mu matal ko te nu ànd ko ak moom nga yàgg ko ànd ak moom loolu moo doon kàddu yi nga xam ne sëñ bi doon naa ko wax ci turu sëriñ Abdul Karim ak turu njabootu sëriñ Abdul Aziz Bara gépp ak dong yëpp it Mbàkke am na fi mamaam jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara sagal na maamam sëriñ maranta mbàkke ma woon fa neegi mbàkke kajoor jaajëf sëriñ baara gis naa fa mbàkke kajoor xéewal yi jama badan yoo xam ni dootu fa jóg lépp